feebar bii di feebaru ni nekk feebar bi nga xam ne day dal góor bëri na ci góor ñi xam ni daf leen dal maanaam dafay jàpp seen Ablaye Ndiaye muy dëng Ablaye Ndiaye bu dëng nag mooy Ablaye Ndiaye bu jàdd gauche wala mu jàdd droite wala mu sëgg maanaam daal day sëgg ba bu bu sëyee sax day gaañ ko jigéen wala boog du mën a jóg normal maanaam day gaaw a peer day gaaw a dégonfler te du dëgër ndax tuyau dëng du am pression te ndoxu seyukaay bi itam du nekk qualité bu baax infection da koy waral ak góor guy fowe boppam di jël sa awra di ko bës ba sa ndoxu seyukaay génn di fowe sa bopp loolu moo tudd mballu lu dangereux la ak borom caleçon yu xat yi te seere ni ñàpp ci seen yaram loolu baaxul rawatina nag ñi daan def sport de combat ba ñu jël ci ko kon traitement bi koy faj mu ngi nii ay pommade la comme ni ngeen ko gisee univers bio bu Serigne Lamine Bara Fall nekk Dakar Géejawaay arrêt du Balesque ngóore bi yokk kattan gi maanaam daal lépp lu jëm ci télé ak awra bu dëgër bi nga xamante ne daal du jàdd fenn macha allah dana jub kocc nga ciy gis sa bopp ki nga ko sekkal di ci gis boppam macha allah kon ma conseillé la xefee la am pomade bi buñ la ko digalee jox la nuñ koy jëfandikoo boo ko jëfandikoo lépp dina am tawféex 77 169 45 45 77 169 45 45 contacter ñu ci whatsapp wala nga woo ñu directement ñu expliquer la nan ak naka boo ko jëfandikoo lépp baax géejawaay arrêt du bales kër Serigne Lamine Lamine Bara Fall macha allah.